di ndokkeel bu baax di leen jaajëfal di rafetlu taxawaay bi ci ñépp di wax ne lii rek la lislaam soxla ndax wax naa ne lislaam ndaw moo ko mos a yenu min ladun aadama ila yawmina haada moo tax ñu ngi jaajëfal ñiy jàpp ci liggéey bi ñépp soxna Ndate Ñang ci jotaayam bu am solo bii mënu andil tabarakallahu wax ci nit ak li ko yàlla di baaxee ak nam ci war a baaxee ay ay ay buñ ne nit daa war a baax ci nit ñi dañuy jàpp ne alal rek moo ko tax a jóg fekk déedéet nit yi yàlla defal tamu mën a jaamu yàlla ci jaami yàlla yi bari na alal ben la ci waye am xel rek mu jup te ñaw yalla may may la ko ñi nga ci mëna dimbalé dimbale bañ réussir kenn xamu ñu toll ta rek yalla may la ko nga xawa am jot li nga ci mëna dimbal ci jaam yalla yi ci orienter len doxal len ay service ak di len gungé ci yenn yi di len dimbalé di leen jàppale kenn xamu ñu toll ja rek yalla mëna la ko may sax nga jaamu yalla ci jaam yàlla yi ca daraja joojo kon yàlla may nit te mu mën a jaamu yàlla ci jaam yàlla yi ci may googee kenn xamutool sax ndaxte wax dëgg yàlla si jotaay bi jotaay bu kawe kawe la waaye suñu Omar Dias it noo koy sant ci jotaay bi mu ci teg di ñu faral di ñëwal ci histoire tabaarakallaahu saa su ñëwee rek ñun ñëpp ñu kontaan ndax na muy gëstoo mag ma muy waxtaanee waaye waxin wi teggi néew geeg leer gi macha allah suñu Omar yal na fay fay la yiw waaye alhaaji Makumba Fall borom Tuubaa Tiwaawan tabaarkalla di borom pësteef lool xam nañu yitte yi bari na jot amul waaye nag lu jot ga di niiw néew jotal nañu ci anduñu histoire Cheikh Ahmadou Bamba tàmbale ko ca démbam ca maamam ya ba dugg ci hayatu Cheikh Ahmad Bamba qabla al ghaiba al bahriya ba ni mu nek ci hayatu Cheikh Ahmad Bamba fi al ghaiba al bahri al al al bahriya ba yegg ci Gabon sëñ Makumba ken amul sax fay yalla yalla fay li yow seen jotaay mag bi di faral di am talaata jot mi jotaay laaj tontu tabarakallahu ñu di ci ànd ak Cheikh Moustapha Ndiaye muy dajale laaj di ñu ko jox eh, di jaajëfal mboolem ñu nekk ci daal ji nag te ñëpp di ay ndaw kenn ku ne sa taxawaay rafet ci lool ndax alquran nettali nañu mag ñu bon nett lu ñu mag ñu baax nett lu ñu góor ñu bon nett lu ñu góor ñu baax nett lu jigéen ñu bon nett lu ñu jigéen ñu baax waye alquran jigen ndaw lu bax rek la netti ndaw lu bon wala ndaw lu naroon bon la netti waye xaruñ ko fa sax muy bon waye dañ ko liquider kon am pinc mom luñ mëna def ba ndaw lu bon du ca am waré na def motax bu ay ndaw fi takato euh dippé sen bop wala bokk pas-pas ak ndaw ya nekkoon ca xontuma innahum fidya amono bi rabbihim wa zidna hudan waaye dippee seen boppi ndawi saxaaba ya nga xam ne alayhi salaatu mu takk xare boo xam ne magi saxaaba yëpp dañ cey nekk mu xool ndaw lu amul ñaar fukki jox ko drapeau ba ne ko jiite xare ba waaye Ahmadu Bamba waxuma ñi ma àndaloon ak waaye moom rek bi muy sos yoonu murit daanaka fanweeri at lay am ndax cinquante ak quatre-vingt ñi ne cinquante deux ak quatre vingt waaye daal weesu loon daanaka ay fanweeri at taxaw li yëm nii kon lu mos a taxaw su taxawee rek ndawa ca ne kon loolu moom ñu ngi ci jaajëfal mboolem waa daara ji di wax ne jot amul waaye jot am na kenn ku ne kay la ngay jotale sax jot la ñuy xool waaye jot moom kenn mënta xëy vingt quatre heures sur vingt quatre di daw lool loolu loolu du fitraab nit yàlla bindeewu ko nit kon wax dëgg yàlla ku ku am jot ci daara ji danga ko am ñu ngi jaajëfal ñëpp nag wax dëgg yàlla ci yittewoo jekk sa foog bëgg lu baax gi saa su ne ñu ngi jéem a euh, laaj ay laaj ngir ñu dundalee ko xam-xam te loolu rek moo fi bàyyi diina ji laaj ak tontu moom bu jeexee rek diina ji jeex Cheikh Moustapha laaj yi bi si njëkk jot nee na jàng alquran laaj bi jiitu bi laaj bi ci jiitu nee na jàng alquran ca kaw ak jang alquran dank ban mo ci ëpp euh Seydou hussein jang alquran ca kaw amna tiyaba jang alquran dank amna tiyaba waye li gën ci jang moy jang mu digg waxu ñu nga jang ko ca kaw kaw bay tankal nit ñi waxu ñu nga jang ko ci suuf ba ay xalaat ak sikki saaka dila la am Ali salaam dafa mos genn guddii di xol sahaba yi ndeysaan kenn ku ne bu jaaree si buntu kër rek gis lamp bay tàkk bo xoolee si fenêtre bi gis la nga taxaw di julli mu wër wër wër bi mu xëyee ñëw ne bi mu xëyee yi ñëw di nuyoo si mu joxoñ ne ko ah yow de Aboubacar romb naa la démb ngay jàng waaye ndànk nga doon jàng lu tax Aboubacar nag ah man de sang bi li tax ma doon jàng ndànk mooy dama xam ne comme ki may waxal mi may dégg ba suma ma ko déeyoon mu dégg ma moo tax ma wax ndànk rek mu ne Omar yow bii git bi ma rombee sa kër dégg naa la ngay naafi la waaye da nga wax ca kaw ana lu tax. Omar ne ko li tax mooy damay jàng ca kaw ngir dàq gëmment waaye damay jàng ca kaw ngir dàq seytaane ndax seytaane comme du déglu lu baax ma jàng ca kaw mu gën maa sori alei satu salaam waaw góor daal ne Aboubacar yëkkatil tuuti Omar wàccil tuuti ngeen daje ci digg ba moom rek mën a at alei satu salaam lii loolu mooy na ngeen doomu rek jërut suufel bu ëpp na yem jërul kawel bopp na yem ndax ñun wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata loolu la alquran wax alquran nee na ñun xeetu alayhi salaam daf ñoo def ñu nekk xeetu diggu dóomu bëgguñu tafrit waaye bëgguñu ifraat bëgguñu ñu suufel bu mu ëpp waaye bëgguñu ñu ko moo tax lépp loo xam dafa nitee lislaam daf ñuy may ndigal ñu jëfandikoo moo tax bi amee ay saxaaba ñu ne ñun daal euh, li jaam yàlla dañ koo xeeb dañ koo bëgg a yokk dañoo bëgg a yokk volume bi ba mu sës ñu ne man duutuma nelaw guddi géexe mat lal sama sijaat di naafila ba julli fajar ma jullee fajar soo ko wéyal dem ci toole ñii ne dootuma lekk bëccëg mukk ci àdduna bis bi set damay dëkkee woor ñii ne man de danaa jaam yàlla ba du ma tal takk soxna ci jaam yàlla képp laa jeexal sama dund kenn ku ne wax wax wax wax wax alayhi salaam dégg ko woo leen ñu ñëw mu ne leen yéen de maa leen gën a ragal yàlla maa leen gën a jege yàlla waaye man damay dog léeg-léeg léeg-léeg ma woor damay naafile léeg-léeg léeg-léeg ma nelaw guddi maa ngi nii takk soxna ñun xeet wu diggu doomu nañ dem leen ngeen di woor léeg-léeg léeg-léeg ngeen dog dee leen naafee léeg-léeg léeg-léeg ngeen di nelaw dee leen takk ci soxna yi ñun duñ xeet woo xam ne dañuy yokku volume bi ba mu ëpp waaye duñu xeet woo xam ne ñam suuf ndax loolu it ñun ñoo nekk digg bi ndax yahud yi ak nasaraan yi nasaraan yi dañoo yokku volume bi mu ëpp ñu topp seen ruuxaaniya ba taluñu daray àdduna moo tax euh, nasaraan yi seen borom xam-xam yi da ngay gis ne dañoo dogoog àdduna dem ci seen jàkka ya sax fa lijjantiwuñu àdduna toppatoowuñu àdduna ñuy soxna amuñu doom te xam nga loolu nitiwut wut ndax loolu bu yàggee àdduna jeex bu nit ñi takku soxna amuñu doom tabaxuñ kër yi dundaluñ suuf si léegi te na jeex kon nasaraani seen borom xam-xam yi dañoo ëppal foofu bu dee yahudi ñoom danoo danoo suufeel ndax ñoom dañoo topp matière doom adama ba bàyyi ruhaniya ndax euh, nit ñaari xaj la ruhaniya nga xamne mo delu ci yalla ak matière bi nga xamne mom lañ bindé nit muy suuf nga xamne da daa budé bu ñom dañu top matière bi moy suufe gi ba fu ne aduna rek lañ ñu wu fu ne ni gis nga ko ba saay saay saay nu ñu war wax ko sa suñu ci lépp àdduna mën nañ ko loo xalaat ci àdduna rek mën nañ koo def waaye nag li jëm ci wàllu yàlla dañ koo suufeel bu dee nasaraan yi lu jëm ci wàllu jaamu yàlla lañ fooral lépp lu jëm ci wàllu àdduna ñoon ko gannaaw bi lislaam ñëwee nag dafa boole ñaari mooy wal jamaa baynal xawfi war a yi xayru si jaajaak bi tilaay yi daal dina jullit bi da war a toppatoo ca roox ba set jëm ca kaw waaye toppatoo sa jëm ak yi mënta ñàkk ci àdduna boole ñaari nga xam da ngay doxee ñaari tànk kon motax tax diine ji mo gën mat ci diine yi waaye gis nga ko sax motax xam alxuraan ko nettali ci muhammad rasulullah bo ñoo da ngay deg ne mu ne walladina maahu ashidda'u ala al-kuffari ruhamaau baynahum su ko defee nga deg mu ne tarahum ruk'an sujadan moy jullit ñi dañuy toppatoo seen jaam yalla moy ruk'an sujadan mo représenté lo fofu waaye yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana waaye nag fàttewuñ mbiri àdduna yi toppatoo ko ak dundal si mu ne dalika masalum fi tawraat ndax tawraat ñoom dañoo toppatoo suuf gi wa masaluhum fi injil kon euh, bu njëkk bi mooy taraahum rukaan sujjadan mu ngi si jublu nasaraan yi dañoo toppatoo côté boobu képp bàyyi geneen côté bi bu dee yahudi yow taxoon fadlan minallaahi ridwaanan mbiri àdduna yi képp lañ topp too waaye jullit ñi ñoo ñëw dal di boole ñaar yooyu moo tax aay bu tënk leen daal di jullit ñi mooy seen ñaar moo tax ñun danoo nekk diina ju diggu doomu laaj bi stop nee na kii daa xam ci imaam ji daal ay jikko yu xaw a doy ba tax nangu la topp ci gannaawam julli ndax loolu dina ci am bakkaar mbokk mi Imam, lay tax nango nangu julli ci gannaaw moy muy def chay chay gu aju julli gi imam su fekke mu ngi def yenn bàkkaar yi lola diggam ak boromam la waaye su fekke bu ñu ci julli gi day jull day jublu ci jite gi mu jite reuy wala muy baye farata wala ponk wala imam suy di ñaka matal yenn yim matal wala njàng yi xaw a ñàkk normal loola nga xam ne day def caay-caay gu ay julli gi man nga xam ne kii du ma julli ci ginnaaw waaye su fekkee maa ngi koy defee nañ ko war a defee waaye yenn sikk yi muy def xëy na diggam ak boromam la wala diggam ak pénc mi la loolu nag lu koccal ci te nag ab santuñu ko muy gëstu nit bay xam ci moom lu normal rawat na nga di ko xoole ba naan bu ma xoolee duma mën a roy ci moom lool it ba moytuwut euh, gëstu ngir nit ñi dañuy wax na ah nañ ku gëstu gis té ñaare lo jiñ nit te ko bu mu yalla natt la ci balaa nga faatu te daanaka ku mat 100% pour cent dañoo xam daanaka amul ndax yoonu rek moy maasum kon ab jilit dal wa euh, bu sa bët tegoo ci normalut nee ko ee eh, leekat sa yu ci yow mi ndax yëfi jambatu bo meron ni nga wara mel do ko gis ba sa nopp déggee dara nga wax loolee bu sa xel xalaatee dara nga wax loolee kenn ku ne fexe yem ci sa bopp rek ndax kenn ku ne wax dëgg yàlla sa bopp dalaa doy dalaa doy kon suñu di def nag suñu noonu loola problème am la su ko defee yow nga lijjanti say problème nag mooy yow fexeel ba sa diggante sa bam rek jag moom daal suñu ñëwee nga xam ne li ngeen seq mooy contrat julli gii mu ngi koy normalal doy na sëkk laaj bi stop nee na xalil baaroomi loxo ndax euh, booy raxas sa loxo yi ci njëlbeen nga koy def walla déet waaw mbokk mi laaj boobu nag defoon naa ak leeral gu xaw a yaatu ci njuumte yi am léeg-léeg jaam yàlla gi moom mi bokkoon na ci xalil bi ngay njëkk a def ci booy tàmbali jàpp loola sunna la ndax raxas loxo foofu sunna la kon xale gi daa bokk sunna yi boo déggee ñu la xalil baaroom yi dafa war mooy booy raxas li tàmbale ci ci baaroom yi ba ca conc la foofu da gis koo xam ne buy raxas li tàmbale ci tikku njara bi ba conc la day fàtte la ca kaw mooy baaroom ya mu mel ni day bàyyi xel ne bu muy tàmbali jàpp raxasoon na ko a ah, axakañ raxasoon na ko waaye foofa sunna la fii da koo war a raxasaat ndax xalil baaroom yi war fii la amee mooy ci diggante tikk njara bi ba ci cuñcu bi kon faw da nga ko war a raxasaat boo ko raxasu day mel ni bàyyi nga waa ji njàpp ma des na daa bëri nag njumte yu mel noonu yu am ci jàpp ndax njumte yooyu da koy gis ba ci léeg-léeg galaxandiku nit day jàpp ndax suñ tubaab dafa jàngale ñett ci galaxandiku sex ndox mi yëngal ko yëngal gi mën naa nokk sa baaroom comme nga soccoo ko ndax loolu it luñ soppale ci njàpp yàbbi seex ndox yëngal yàbbi ñett yooyu ñoo seex galax doo gis koo xam ne léeg day seex rek yàbbi seex yàbbi seex yàbbi du socc te loolu daa bokk ci lii euh, ñàkk a matal njàpp mi loolu njuumte la ci benn bi sopp mooy da gis koo xam ne buy masaa nopp buy masaa nopp yi au masaa ko benn yoon waaye da koy jéem masaa ñett yoon fekk déedéet masaa nopp benn ko santaane gis koo xam ne buy masaa bopp masaa bopp dem dikk la dem bi farat la dikk bi sunna la am na koo xam ne ñett yoon la koy jéem a masaa te fekk loolu it la <clears throat> lu ñu war a corriger la ci jaam yi ndax jaamu gi ni ko yàlla santaane rek noonee la war demee waaye duut kenn ku ne da ngay xool na ko jekkoo nga di ko defee noonu wala nga gis koo xam ne bu jàppee ba noppi o lieu mu téen rek donte ne fi nga nekk niig la sax waaye fexel ba say ba dem ci kaw rek donte la gisoo asamaan nga ne ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaye day gis ni euh, as ndox sex tafli ko soog a tiin mel ni loolu daa bokk ci njàpp ma fekk biir loolu bokk ci njàpp mi loolu sax boo koy ak ñàkk la ndax boo raxasee say tànk léeg-léeg bu bu fekkee dafa xaw na am tilim nga tàmm jël ndox sex ko ba boo raxas tànk yi mën nga ko bañ a loolu ñàkk la kon daal boo rax raxasee sa tànk càmmoñ ba mu set lañ la wax muy téenal daal di wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu lu ñu war a corriger mooy seex googu ñu seex ndox mi dana weesu foofu sax da nga gis koo xam ne bu taxawee du julli au lieu que mu tàmbalee fii téere jàngale li xam waaye da ngay dégg ñaan astaghfirullah min kulli shay'in inna llaaha kaana ghafooran fekk déedéet loolu bokkul ci li xam liqaam ni tàmbalee rek ci allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illallah ba mu jeex loolu it luñ mat a corrigé ndax bëri na ñoo xam daanaka boo ko defoon sax dañ naan kii ni mu liqaamee na nangam nangam fekk diir allahu akbar rek fa la liqaam tàmbalee allahu akbar fa la noddu tàmbalee bis topp mooy léeg-léeg bu ñuy kàbbaar kàbbar xarmal wala kàbbar mujj bi da gis ñëpp maase xural seen baat nañ war def mooy kàbbar yooyee mo yëpp ñooyee mo ne allahu akbar gu diggu doom rek doy na sëkk fu ne ni kabar gu mu digg mom loolu ñëpp ko seetlu ci jàkk yëpp mu melni da cey bok ta fekk bokku ci mo kàbbar yi yoss weesu ñëpp ñooyam ben bi sopu ñaar nit ñi buñ kabaré di jang fatiha ca kaw dañ koy jang ca kaw waye buñ ko wara jang naan ko duñ ko jang ci am xel lañ koy jangé te bo demee Cheikh Khalil ak yenen téere risaal ak yëpp wax nañ ko mooy euh, boy jang da ngay yëngal saw lamay moo xam ci ndànk la moo fu ne na ngay jàngee ndànk mooy na ngay jàngee ca kaw waaye bee danga koy wax ba ñëpp dégg ko bii nga wax kenn yéen dégg ko waaye na ngay tuddee baat di yëngal sa làmmañ ci jàngam kaw ma moom ngay tuddee baat di yëngal sa làmbañ ci njàngam suuf mi jàng googa ñu jàng mu xel ba léeg-léeg gis koo xam ne julli gi day gaaw a gaaw a gaaw ndekete daa jàng cim xel rek loolu it njuumte yu am ci julli gi bokku ci benn bi sopp mooy bu am na ñoo xam ne bu ñuy sëlmal duñ sëlmal dañ jékki-jékki rek sànni seeni loxo fekk wërta demee noonu bu sëlmal lu ñuy wax la da nga naan assalaamu aleykum ci diggante boobu da nga fexe ba wëlbati sa wet gi mu féetewoo wet ndeyjoor su fekkee da ngaa ànd ak sa imaam nga delloo ko sëlmal su fekkee dafa am ku nekk sa càmmoñ nga delloo ko ab sëlmal waaye wëlbati gi nit ñi di wëlbati seeni loxo bu ñuy sëlmal loolu it bokkul ci julli yuñ ci dolli la bokk bokk na ci julli yu gaaw yi nga xam ne boo rukkooyee doona tekk ba kula seen xam ne da ngaa rukkoo boo siggee rukkoo tek tekk ba kula seen xam ne da ngaa ko déedéet loolu it ci njuumte yi ci bokk la kon loolu lañ ci doon leeral laaj bi stop nee na da dafa doon julli waaye bi muy julli dafa fàtte le, julli gi bu subar la wala gu tàkkusaan la wala sax mune ma maa ngi julli subar fekk tàkkusaan la jubloo wax ndax day yak julli ga waaw Cheikh Moustapha kuy julli su taxawé ci fimi muy jullee xam subar lay julli rek doyna na rek moy yéene da nga japp ba nopi xam ne subar ngay julli rek doyna na ne allahu akbar matna waye nek fa nan waaw su ko defee ma julli la alxames nangam su ko defee man ngi dëkk tuwa Fall yoy yëpp du ko jar bo taxawé dal ba yëg ne nga julli ndax wax gi leg leg moy tax nga wax lu wuuteeg la nga yéene léeg gis ño xam nañ ci son lool waaye fekk dir moy yow na nga xam na tisbaar nga julli rek xam nga fa ni bu la wuré nga julli ko tak mur la ñaar rak ya la julli motax nu bëgg nga séparer ko ba yëg ne nga téwlu ci sam xel rek daal ne tisbaar la bëgg ndax ki julli ñaar rakka sax leen ñin niñ koy julle du bok ak ñu julli subar lool rek lañ bëgg nga séparé ko waye diko wax ak diko nañ ndax bu fekke da ngay jox waxtu wa ngay jox rek rañet leen la ngay julli jër ngaan ma jox ak ma def tisbaar bi déedéet yow daal teewlul daal ne tisbaar lay julli rek sam xel doyna manam ma joxe sax jër nga ko ci wax ndax waxtu wa ngay julli su fekkee ca waxtu wala jox ga yene jox ga dugul su fekke dafa genn nak momit lolay loola it yóbbuwaale na yene bopam kon diko fa tuddu danaka duko mat laaj bi stop neena kuy julli bi ngay taaya ci taaya bu ñëk nga fàttee taxaw ci abduhu wa rasuluhu waaye nga dem ba defar salaatu ala nabi ndax dana yàq dara ci julli gi di du yàq dara ci julli gi lañ bëggoon nag mooy nga yem ca abduhu wa rasuluhu soo ñëwee si ñaareelu taaya gi nga woy ba julli ci alayhi salaatu salaam waaye bu fekkee da ngaa fàtte ba taaya gu njëkk nga julliwaat ci alayhi salaam loolu yàqu dara laaj bi stop neena su aawoo Aye, nee so su aawo ayee ñaareel di toppatoo borom këram maam di togg di andé ka def yef nee ndax dana ci am bakkar a Cheikh Moustapha ak ay bi l'islam di wax walu lek ak togg ak yoyé bukk ca ak ay mom bi ko lislaam di wax mooy góor gi wéttale jigéen ji rek waaye su fekkee ki ayewul dafa am yum togg di ko indil borom këram rawat na comme ni nga ko waxee nii nga xam ne soxna su mag si dafa xaw a mage léegi góor gi takk soxna su ndaw loolu it lu baax la ndax soxna su ndaw si bu gur mën naa yor meer ba yoraale borom këram su ko defee moom comme mooy xale te ñaara nit bu magee bu amee xale mooy mu gën leen a to ñoom ña fa nekk waa kër ga loolu wax dëgg yàlla bàkkaar du ci am xanaa kay tiyaaba la ci am waaye ay léeg-léeg ñu aj koo aja aj ba góor gi day mel ni kenn du ko sañ a ci bu boo ayut fekk diirit boo amee soxla wala nga am ay yitte yoo ko wax wala yu demee noonu wala ngeen toog ensemble loolu lu mën a la li aay kay mooy <clears throat> amul yitte fee dem toog wala boog mu defa dem di wax yu ñàkk fay ak yu demee noonu waaye aya daal li ci lislaam jublu mooy góor gi nu wétti la soxna si ca fan yu juboo bu jeexee mu dem wétti la soxna see ca fan yu juboo waaye képp ko am soxla danga koy wax moom ndax moo boole ñëpp yilif waaye ku ci waajal aw ñamit fu borom kër ga nekk su fekkee yittewoo na ko mën na koo xewloo te loolo du yàq dara ndax bi lislaam di organisé lu gën rafet la si jublu waaye duut ak séparé wala ak xaajale laaj bi sopp nee na aay lu muy firi fal aana baashiruhunna wabtaxu ma kataballaahu lakum kulu washrabu foofu lislaam dafa ci njëlbeenu lislaam bi muy digle koor daf ne woon jullit ñi bu ngeen xasee woor bu kenn jege jigéen gënoon naa metti loola sax mooy diggante tisbaar diggante tibis ak gee lañ nga daan sañ a lekk te boo fa xasee ne la du toog sañ a lekk ba ëllëg ba yenn histoire yu bari nettali nañ ko xew fa ñenn ñi affaire bi diis ci ñoom ba ñuy xëm ak def yëf yàlla ne ah gis naa ne affaire bi métti na léegi daal diggante timis ba fajar ànd leen ak soxna yi aayoon naa leen bu leen ànd ak ñoom waaye léegi ànd leen ak ñoom aayoon naa leen ngeen lekk ci waaye léegi lekk leen ci kon aay boobu ak woyofal la ñu ko waxee ndeysaan fekk ñenn ñi demoon nañ ba àttunuñ loola ñu daan jaar ci suuf di def leneen yàlla ne euh, alima allahu annakum na taxtaanuuna anfusakum yëg naa ne nag am na ñu doon jaar ci suuf di di wuuteeg sama ndigal waaye baal naa leen lépp léegi bu timis jotee ba ba ba kii ba ba fajar man ngeen a xew moo tax summa atimmu siyaama ilal layli wala tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajid euh, laaj bi sopp nee na kudu la xey heure signé contrat ak nit ne ko heure sangam ba heure sàngam lañuy xey xëy waaye moom bu fa waa nekkut wala xëy na moom daal duy xëy si heure ndax lam cay fayoo dana dagan waaw su dee da ngeen a su dee da ngeen a signé contrat mu ne la man 6 heures dama tee nga ma war a xëy wala 10 heures nga ma war a xëy la ngeen juboo ci contrat ba li nekk ak njub te nekk ak maandu mooy kenn kon respecté ko moom it lam la war a fay wa ajira ajrahu qabla an yajfa araqahu dal ci kawam moy nit soko ko dara mu def ko wa fenn ali sallallahu alayhi wasallam ne na nga la ca war ci pay tek ci loxo kon su fekke mankil nga dara ci heure da nga yëg akku jambur nga jël ben dang ko wax mayema ko mu may la ko wala nga ne ko maye ko ci sama pay wala no waxtane mom ba deggo ci waye ngeen waxtan bu juboo nga ne ko tay man ngay xeyel xëyaloo ko mooy dagg nga ci iram rek ba nopp mu fay la ko loolu moom bokkul ci ak màndu léegi nag ñun ñu tàmm ay yëf tàmm ay yëf ba daanaka bu ngeen xasee wax ci jamono ji njëkk yi daal ñëpp dañ ko respecté ca fay ga ñëpp dañ ko respecté ci ñëw heure waaye buñ doxee tuuti rek ka war a fay léegi day bàyyi ba heure dix la quinze soog a fay ka war a ñëw heure léegi day bàyyi ba heure bu ko neex mu ñëw heure bu ko neex mu wàcc fekk loolu bokk ci lislaam moo tax lislaam ndekk màndu bu ngeen xasee ba tënk kàddu al xorr xorr maa la takkal laaj bu comme mayo yi ñuy liggéey ni nga xam day amal ci mbokk bi croix ak yu demee noonu ndax day yàq julli waaw mbokk mi lay yàq julli gannaaw bi jullit bi matalee laabu xadas laabu xadas mooy su waree sangu farata sangu na su dee wut sangu farata jàpp rek ko war jàpp na su amee ngant ba tiim ko war mu tiim wala mu laab sobe mooy lan jëmm amul sobe yére ya amul sobe baram ba mu amul sobe bu loolu xasse am bu julee rek julli ga baax na waaye nag lépp luy symboliser diine ñeneen lu melni comme croyé comme yoyé lolu mum dañ ko tere jullit mum <clears throat> su ko nit defee ta tay ko sax dañuy japp ne lolu mën nako ko ci diine ndax ñom seen fée di ñun dañ ñuko koo dañ ñoo tere croix yi ñuy def dañ ñoo tere li ñuy woote ci naan yalla ñett la yooyee day génne nit ci bu fekkee ni da koo sol nag seetlu ko wala xamu ko wala yu demee noonu loole dara du ko ci wax ndax rabbana laa tuwaxis na in nasina aw axtaana asalaamaaleykum